soxna si euh, ñu toll si tolluwaay boo xam ni réew mi yëngu na loolu tamit euh, di nga ci am saafara parce que ñu ngi jëm ci ay élection nit ñi seen xel dalatul ci li ñu jëm muy wàllu élection benn coow ñu ngi ci muy wàllu parrainage ñu jëm ci élection ci mois de février te nit ñi jaaxle nañ loolu. waa loolu wàllu mbiru élection boo xoon naa ko ci benn site bu ñu duggee ci internet bi mm-hmm. def Aïssatou Penda Diop dinañ ko gis loolu ci koor gi laa ci waxoon te li ma ci waxoon yëpp ñëwaat na mm-hmm. parce que dama ci waxoon ne jamono élection euh, dëkk bi dina yëngu torop waxoon naa tam affaire transhumance bi jógee ci jógee beneen boor dem ci Macky Sall te loolu tam am na mm-hmm. comme ñu ngi ciy doog a waxtaan ak yéen dañ leen di wax rek bu ngeen ko vérifier wala ñi koy seetaan vérifier ko samay vidéo dinañ gis euh, wax yooyu ma waxoon tey moom moo am. moo tax ma samay mbir mu nee naa la mooy seet gis seetu gi si ma toog rek sama vision lim may woon loolu la. boo ko nangoo loolu ngay gis bu dee tey la bu dee suba tam loolu ngay gis li ma la wax rek bind ko. nga am foo ko noté. boo ko gisul tey gis ko suba wala mu nekkoon démb loo paase ñett yi laay seetee. le passé le présent et l'avenir man sama seet ci loolu la jublu du ma seet rek ne la nangam bi yeeg lii wala làmbatu beeg jigéen ji wala kële man liggéeyuma loolu hmm. man seet bu leer anam bu leer lay seete hmm. lu leer laay wax kàddu yu leer laay wax ni may seete tam noonu laay ñaanee mu ne domaine élection yooyu la ma ci waxoon moo amaan muy transhumance bi hmm. jóge ci seeni wàll dem ci fekki Macky Sall mu ne mi ngi taxawal tam mu ngi am adversaire yoo xamante ni tey réew mi jaxasoo na trop mu ngi taxawal tam Bougane taxawal Sonko yaa ngi dégg tey xalifa euh, Sall mi nga xam ne mu ngi taxaw war a nekk adversaire am ñu ngi ko téye waaye moom ku war a mën a bokk ci élection yi parce que man loolu laa gis xalifa mhm. Sall tam dama gis libération mu leer libération avant yi waaw dama gis mun ne libération léegi du yàgg tuuti rek léegi ñu gis xalifa Sall ci biti uh-huh. waa dafa am lu ci laxasu rek waaye mu ne lépp rek day mujj ci jàmm waaye libération man loolu lu ma wax na bu yeboon ñëpp takk ko téere léegi ñu gis mu ne xalifa Sall ci biti. kon Khalifa dina génn bokk ci élection yi. waaw Khalifa. mu ne ku ñuy bàyyi lay doon. waaw ku ñu bàyyi lay doon lii mbiru élection la rek moo waral lii waaye xalifa ku ñu bàyyi lay doon. Mm-hmm. waaye moom tam amal nañ ko ay sarax bu dee am na ku ko jege. Mm-hmm. wala moom ci boppam mu yittewoo ko amal nañ ko ay sarax waaye mbiram nekkul loo xam ne lu ñu téye la lu ñu tënk la. Mm-hmm. loo xam ne war nañ ko ko téye waaye jàmm rek moo ci mujj. mu ne wàllu élection itam dina nekk dëkk bi dana jax torop waa dëkk bi day jax trop lu jëme ci bugaan bugaan tam nit ko am doole la. Mm-hmm. parce que waxoon naa ko ci sama vidéo yi passé dama gis rawaanu bugaan di ko garder ba bër sa toog ci gaal bugaan doon weer. mu ngi mel tey sa projecteur ni mu leeree moom noonu la leeree ci kaw. Mm-hmm. te lépp loo gis mu nekk biddéew. Mm-hmm. mu leer ci kaw wala nga gis tey weer mu ne lool borom day nekk nit ku kawe. tey yow boo géntoon tey sa doom. nekk ci kaw asamaan da ngay gis ni moom mu doon biddéew wala mu doon weer day nekk nit ku kawe soit mu nekk président de la république wala mu nekk koo xam ne ku ñëpp di tudd lay doon te Bougane dafa bokk ci ñooñu. Mm. Bougane tam mooy adversaire bi nga xam ne moo sës ci Macky Sall rëkk. Mm. te la mu feeñal ci kaw. mu ne la mu denc ci suufa ko ëpp ndax am na ñoo xam ne dañoo toog ak seen tranquillité rek réagiruñu mm. moom tam début bi dafa toogoon ak tranquillité am annoncé woon naa ko mais mantam tam bugguma woon directement comme ni nit ñi def di tudd ay turu jàmbur. di wax seeni secret yooyu tam bokkul ci lu rafet man duma liggéey loolu. mais xam naa bugaan fi mu jëm ak fi nga xam ne fala la toll waaye mbetteel gu mag dina am. waaw mbetteel gu mag dina am te élection yi incha allah du ma wax euh, résultat yi mais dinaa wax tam fu mu toll. yaa ngi dégg mais affaire yi jaxasoo na. mais ñan nga gis na ñoo ñoo nar a sonal Macky muy Bougane bi nga wax ak Sonko. Bougane mi am doole mii ak Sonko ñoo ko gën a sonal. xalifa Sall tam sonal nañ ko waaye mayeguñ ko bunt bu mu manifesté woo. waaye xalifa Sall tey bu ne woon bërët génn Macky Sall ñàkk. waaw moom. Khalifa Sall ak Bougane mooy ñu sës mais moment bi Bougane moo toog ci premier position te Bougane mu ne bombe à retardement la. waaw parce que li nekk topp ko kenn xamul nu ñu toll moom lool sama gis-gis lu may seetaantele wala loo xam ne lu may fent la moom tam amal nañ ko ay sarax ñun laajuñ kenn dara man samay mbir képp koo xam ne yittewoo nga mu ne defar Sénégal muy Macky Sall tamit amal nañ ko ay sarax bu dee ñu ko jege taxaw nañu bu leen neexee ñu baaxuñu man li ma ñor mooy mun a jàmmi Sénégal avancement Sénégal mais néew ma kenn nga jox ma fukki dërëm li ñu may Sénégal jàmm rek moo ñu ñor parce que benn moment tam profanation yi bari na yaa ngi dégg sulli néew yu bari na ñiy jëfandikoo gàllaaj yu bon parce que ñenn ñi yàq lañ mën mënuñu defar parce que li ngay dem di ñu lay dem bala ci laaj ngay sulli néew loolu fajur daal li koy faja ngi nii man li ma gis man li nga xam ne moo leen di yëkkati ñu soxla ko du ci cëru nit lay jóge yaa ngi dégg sacrifice yoo xam ne ci ay mala la nekk waaye nekkul ci doomi aadama déedéet. Euh, soxna si lan ngay wax euh, ci ñi nga xamante ni ñoom ñooy population bi muy citoyen yi ñi nga xam ñoo war a dem wote ñi nga xam tam ñooy toog seen kër pour ñoom ñu mën a mucc ci coow li nga xam dana judd ci élection yi wala boog fitna yoo xamante ni dana am maanaam fitna gi lan moo ko mën a euh, arrêté mu di ay sarax yoo xam ne mën nga ko digal askan bi. waaw bëri na wi coow ñu àndoon ak Macky Sall bàyyi nañ ko war ko. ñi transhumé tam jóge ca beneen boor ñëw nañ fa parce que nit ku nekk rek am na ci ñoo xam ne seen xalaat nu mu toll ak nañuy tooge. waaw am na ci yoo xamante ni tamit doomi aadama yi ñooy nekk ñoo xam ne li ma leen di digtal mooy. nañu jaamu yàlla. jaamu yàlla delloo seen xel ci yàlla di julli. nga tànk yaa ngi xëy nga xëy julli ba jàpp ba set. mun a sori nga saytaane ñuy def ayatul kursi def salaatul faatiha def falaxek naas di ñaan boo ko defee heure boo xëyee nga def ayatul kursi yàlla sorel na la saytaane waaye boo xëyee rek génn sa kër dem lu nekk mën na dal ci sa kaw ba ñi nga xam ne dañuy yóbbu nit ñi trafic d'organes yi bëri na yóbbu nit rey ko jël cëram jaay ko wala nga jël xolam wala nga jël rein mu ne yooyu yëpp ci xeetu saytaane la bokk te léegi tas na ci Sénégal mm-hmm. waaye bu ñu xeetoo ci ayatul kursi falaxek naa salaatul fatiha mm-hmm. mu ne incha allah mu ne yàlla mën nañu musal ci lépp loo xam ne mu ne doomi aadama boo xam ne saytaane dafa lax ci kawam mm-hmm. dana xëy suba ba ngoon waaye du suñu yoon fi ñu jaar du fa jaar. fitna yi ci élection yi euh, maanaam yan façon fitna la ay xeex la wala boog bal dina tax wala. waa gisuma bal dina tàkk waaye coow dina bëri coow xëccoo dina bëri te coow xëccoo bi déjà commencé naa bari mm-hmm. waaye Macky Sall nag tekkaaral na mm-hmm. tekkaaral na lool mm-hmm. waa tekkaaral na te xawoon naagu tuuti waaye mbir mi nag ñi koy song ñett la de mu ngaa ñetti adversaire yu koy xaar loolu tam duma tudd seen tur waaye nit ñi dinañ teg seen bët bu élection yi Karim Karim dooleem bëreetul waa Karim bu ñëwee dooleem di bëri mooy mu ne bu Macky Sall dooleem néewee mu ne Karim ci la dooleem di yéeg ndax euh, Macky Sall wàññi na doole Karim mm-hmm. waaw parce que Karim tam damay gis na Sénégalais yi mm-hmm. bëgg nañ ko mais des na daal waaw bëggeel gi des na parce que doole bi des na parce que liñ ko téye tam dafa wàññi dooleem lu bëri parce que ni waa ñàkk kóolute tam dem na ba commencé jax-jaxal xelu Sénégalais nee naa la mm-hmm. xoolu Sénégalais yi bugaan moo ci ferenkulaayu Sonko ferenkulaayu na ci bugaan ferenkulaayu na ci waaye ñetteel bitam dafa xaw a néewal dooleem moo tax kenn du ko tudd moom waa dooleem dañ ko néewal dañ koo wàcce mais ñett ñi fuñ taxawoon nekk ci biti Macky Sall daanu mm-hmm. waa waaye loolu mënul nekk mënul nekkati mm-hmm.